रेणु र mu ñu jékki-jékki bàyyi bàyyi mu rës nga xam ne ñu nekk ci àll ba sax waa ñu ñu nekk ci àll ba sax dañuy dégg télé ji. Ah, ah, état mental. mu ngi ci ah, en instant maa ngi ci en l'aise wallahi accident bi kat nag dafa bëri woon lii quoi ñu gaañu en plus ñu feebar ñu dee man maa ngi sant mas a ci fekk boo xam man màkk bara gi laa jóge yor sama moto bii doon yóbbu client boo ñeeku ab particulier daanu fii ba mbëkk garab te kenn da laalu si for si am lu ñu dawal ñoo xam si daal li ñuy dawal contre naa loolu parce que daal lu ci rax c'est pas normal muy dawal oto man de li ma a wax rek ci ay sapeur pompier dañoo gaaw ñëw sauver ñu kam sapeur pompier mention spéciale à asalaamaaleykum internet Senego TV ak Kawtef ñu leen di wax ni xaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di jaale bu baax a baax waa Sénégal di jaale aussi ñi nga xam ne ñooy waa Louga ginnaaw accident bi nga xam ne daal dina fi am wante it waa Fuuta duñu leen fàtte ndaxte bus bi nga xam ne moom moo def accident Fuuta la jógee woon di dem ci Ndakaaru ci noonu la daal di mbëkk li nga xam ne mooy garab biñ leen di woon ba mu ko mbëkkee nag gis ngeen bus bi moo nekk nii ci suñu ginnaaw ay mort yu bëri am ci ay blessé yu bëri aussi am ci ci kanam incha allah dinañ leen defal bilan accident bi mais nag balaa ñu dugg ci bilan bi vu que ñu ngi ci lieu bi dañuy jox rek ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ñu def seen réaction ci boobule accident salaamaaleykum. Euh, maaleykum salaam wa rahmatulah soxna si ñu ngi leen nuyee ñëpp leen siyaare yéen ñëpp xamal leen lii dal ci tiis bi suñu kaw ñu ñu ngi masu joone ñëpp euh, di mas joone wutim muy sandrama yi ba ci autorité bi ñëpp ñu ngi leen sant ñoom ñëpp ñi xamal ne leen euh, li xam ne mooy njëkk wax état mooy lenn mooy man chauffeur laa dawoon naa sept ans transport mais am nañ jafe-jafe boo xam ci kaw tali bi maanaam lépp loo xam si lu mën doon état de ci seetaan lu bëree bëree bëree ci autorité nga xam ci kaw tali am d'accord am na ñoo xam si am nañ sikk encore itam parce que bii dafa nekk loo xamante ne yaakaar naa ci Sénégal nekk loo xam ne transport en commun moo ko tax a jóg bii personnel moo ko tax a jóg mais tali bi mel na noo xamante ne rata boo xam si maanaam chauffeur si bi ci ëpp doole mooy huile da ciy tuuru gasoil da ciy tuuru parce que am na erreur booy daw boo xam ne si lu la mën a bett ak loo mën a doo soo feneen ba oto bi day glissé su nawet li nga xam ne maanaam bu tawee ba pare xam ne dafa dañ ci ko tëli bi maanaam erreur bi nga doo mën ngaa doo sans nangam foo freiné boo dafa dee glissé tey am na loo xam si bëgg naa koy ñaaxite muy état bi mooy nañ baay bu soog amee ñi nga xam ñoo fiy njëkk ñu leen dàq nañ waaw c'est-à-dire que parce que am ñoo xam ne ci tey sama classe nga xam ne ay sifor lañ tey jii su boobaa ñu saw dañ bëgg sawee su boobaa parce que ba sàppari ñu am ñoo xam ne man bu oto bi oto mais ki nga xam ne faatoogu ci biir oto bi su boobaa mën nañ ñoo bàyyi ñu ko génne su boobaa dañuy jàpp ne premier soin yi doo leen ko maîtriser te mun ngeen gaañ ñi nga xam ne ñooy blessé yi est-ce que du loolu moo tax waaw d'accord mais lépp ngi ci parce que su boobaa su fu mu daanoo su boobaa gendarmerie ñëw fekk fi maanaam nit ñu taxaw nañ bàyyi nit ñi xeet li maanaam ñi nga xam ne ay blessé leen a mais da ngay ñëw fekk soog am tey li ñi nga xam a ma leen a génne parce que soog dafay am toujours man dama ci jëm toujours parce que bu yógul am na xam si am na ndam SPA ci man foofu la dëkk bi soog bi amee bi ndikkee di génn nit ñi dañ dañ leen dañ leen a digaas ñoom ñu jóg foofu mais pourtant ba bu ñu bàyyi woon booba ñi xam ne faatuñu mën na leen a génnee ah mais jot ñu xar sàppoor beneen bi des man jàpp naa ne biis bu ñu ko interdit woon Sénégal transport nekk loo xam ne soog amoon tey jii muy oto bu ndaw muy sept place tey jii fu soog amee fukki nit bi fu tax mën nañu ko yëkkati si boobaa mais biis fu mu daanoo jii dégg nga bu fa téeméer ni des mu ñu ko yëkkati il faut ñu xaar biir bi ko yëkkati mais biir ba ba li ñu bu ko yëkkati mën naa rey nit ñi parce que oto bii fekkuma ko mais ñee ñi ko fekk ne ba kay biir yëkkati ni mu ko yëkkatee dafa rëcci mais rëcc googu mën naa na a rey ah, dafa rëcci mais kon la tax maanaam état dégg nga sufoor oto bi nga xam ne maanaam dafa déparé Fuuta c'est li ma lay wax bu baax nag oto boo gis bu soogee ñaare foo ko toppatoo ma nga jóge Fuuta jëm Dakar wala mu jóge Risaata jëm Dakar jóge fu sori gis nga ni ñu def de arrêté oto di leen naan cinq heures du matin ñu départ am sens si foor si nañ seet ñi mëritoo oto yi jox leen ko. justement ci chauffeur yooyu balaa ñuy jaat parce que da ngay gis accident yu bëri dañ leen duut ba baaraamu ma parce que dañu naan excès de vitesse da ciy am wala it indiscipline dañ ko ciy waxaale. chauffeur yi waaw duut baaraam chauffeur si am na. parce que loolu fi ma njëkkee mooy lenn ci sama bopp lay commencé parce que buñ ma jàppee ci kaw tali bi man lañ ma jàppee lañ ma yóbbu fourrière bi fekk damaa war a fourrière ñu fourrière ma buñ ma ba dem. au ma permis bi buñ ma bàyyi ma dem lan yoon sant man nañ ma ko def mais lan moo tax chauffeur départ ñu ko jox arrêtation mu di ko dawale fu ko neexee te koo ko jox mu xool ko bala nga dem ah? bari na ci oto yi ci sama bopp lay commencé dawlul oto. Sénégal lu ko yàq mooy lijjanti ak yaama neex nañ bàyyi loolu ah nañ bàyyi loolu parce que activité am na parce que lu ko waral mooy chauffeur bi nga xamante ne jëngul dawal jarul garage xomb li chauffeur daa xëy mbokkam am xaalis mu mën a dawal mu jënd ko oto dawal moo bari ci transport léegi. léegi li tax manaam ñi nga xam dañoo jàng dawal am seen permis maîtriser ko am seen diplôme kenn du leen ci oto yi ah mais xal bu ndaw ngay gis koo xam ne li la wér na yëngu ci oto. ñaari at lay jàng oto wala at lay jàng oto dem jëndi permis ah ñu jox ko oto muy dawal nu ko neexee wàccee tuwéy ah dawal la neexee taal sa rajo kooku man contre naa ko si chauffeur amee contre naa leen benn chauffeur si am na ñuy dawal ñoo xam si daal li ñuy dawal moom contre naa loolu parce que daal lu ci yar c'est pas normal muy dawal oto parce que xam lu tax eh, daal cran lañu war a dawale parce que pneu cran dafa am daal cran am fi ñu koy dawale kenn la jàpp ñu jàpp la. parce que lan moo tax loolu daal bi ngay dawalee dañ bu déggee huile wala gasoil mën a tax nga lal pétale mu mbas mais boo soo mbas yi fekkatoo fa dara oto ba dem ah c'est ferme la wax wala daal comme daal pétale yi waa ji sol moom la wax nga di ko dawale parce que am na cran parce que bari nañ si wër loolu dañ ko di contrôler mais si bi daw sa seulement tëj sa kap teg sa wéruñu kukku ko contre ko contre benn nga ñëw alkaati bi wala gendarme bi war laa di ko apprêté contre naa loolu na ci tali mais tey bu ñëwee ci lieu accident bi nee nga ma sànq chauffeur nga fii kon miin nga yoon bi est-ce que accident bëri na ci côté fii ñu taxaw exactement parce que dafa xaw a nuroog accident bi amoon six kilos. waaw accident bëri na fi waaw li commencé fii ba Kër Baara Wade ba ba ngay àgg Kelle ba ba ngay àgg Ngouma Ngeewul bëri nay accident man 98 ba léegi maa ngi ci oto yàlla suturaan ma dawal naa ba dawalatuma musuma def accident parce que man damay tànn heure yi may daw man. su ma gëmëntoo mënu ama dawalal la yaa ngi dégg su ma lee sama toppaan mënu ama dawalal la yàlla dimbali ma ci loolu mais tali am na defe bu ci am ñaari oto mënuñ cee romante bii sa kab ya bu romante kenn kenn ku ne wàcc ko doon mais sama romu jàll ba see ñaari si daan laalante loolu dama ko seetlu benn bu dul ñaar muy guddi nag muy bëccëg mais tali lan moo tee ñu yokk ko ba njëli parce que li ñu taxaw tali la bokk ah? parce que pourtant bii bii Sénégal donc lay daanoo mais doo ko dégg Europe ah bi Sénégal dong nga dégg muy daanu mais lan moo tax lañ la ñu dawalee Europe ah ñu ne biis bi bu déparé Europe ah 30 minutes ngay taxaw ci arrêt yaa ngi dégg nga dépassé borom déparé 30 minutes lan lan def nañ essayé loolu bu ne oto bi ndar la jógee. bu demee Louga bu déparé Ndar ba Louga dana taxaw 30 minutes oto bay déparé Ndar ñëw Louga taxaw 30 minutes ka déparé waat Louga dem ba Ngoumba Ngeew taxaw 30 minutes buñ ko defoon yaakaar naa soog dana wàññeeku. exemple bu ñu jëlee kaawu Sikilo ñuy wax comme arbre bañ fa fekkoon dafa am ay lieux mystique fii est-ce que mun nañ fee wax genre yooyu comme yoon bi dafa am boroom ak du genre mun nañ ko fee wax. comme yoon bi yoon boo gis am na boroom kër sa am na boroom doomu aadama maîtriser boppam lan mooy maîtriser sa bopp mooy soo yebee xamal waxti wa ngay dox mais da dem Ndakaaru na orel laa bëgg a dem Dakar wañu ko dellu fa nga jëkk woon man du ma ko defal kenn man transporteur ba nga koy defal ma ngay këram di nelaw toogi ki soxnaam du ma ko nagul kenn man man du ko kenn man xoolal oto bi xëyee Fuuta dem ndakaaru fa seen ka fanaani waat fanaani fanaani waat Fuuta est-ce que kooku da yow mu ma ci dugg dama nelaw laa lay wax ah dama nelaw laa wax bu ñu sonnatee nañu nelaw noppal suñu yaram wi ku liggéey lu mat ñaar fukki at loo mu la diitoo ko am kuy da kuy liggéey ñaar fukki at lu amul loo amul di doo ko am. non moom dañ koy yëkkati ñaari yoon yoo xam ne si maanaam dañ koy yëkkati ba mu ba tàmbalee du jóg maanaam biir yi ko doon yëkkati seen doole moo bëriwul ba tax ñoom ñaar buñ koy yëkkatee ñaari biir la ak benn kii mooy oto oto yi nga xam ne dañuy tibb ay xeer ak yooyu waaw caractère dañuy yëkkati ba mu yàgg ñu jekk jékki bàyyi bàyyi mu rës nga xam ne ñu nekk ci àll ba sax waa ñu nekk ci àll ba sax dañu dégg télé ji waaw tout le temps ñaar ñaari yoon après lañ boo benn benn biir boo xam si ci wet ci wet la nekk moom moom mujj ñëw yàlla dogal moom moo ko yëkkati ba ba mu jug nii waaw. am na ci ñoo xam ne si moom gis nañ leen ci biir ñoom moom dara jotu leen mais bari na ñoo xam ne si tamit ñu ngi woon ci biir ñoo xam si de faatu nañ ci biir waaw loolu moom am na fi waaw. waaw kii kii moo moom kii. kii nii kii nii ah. déedéet moomu. waaw. ay ay sept heures la. waaw waaw. man kay man mënu mënu ma leen expliquer man. instant boobu damaa damaa damaa t bu verte bi moom ci rescapé la bokk mais jamono ji moom mënul wax moom ak beneen t-shirt bu rouge bi moom tamit e, ci rescapé yi lañu la ñu bokk mais accident bi da leen traumatisé tellement que dañu choqué ba bëgguñu revenir waat en arrière pour expliquer ñu carrément dañu ñëwoon nag jël si seen bagage yi ku ci nekk nag jël nga ci sa dàll ak sa casquette borom dàll bi moom tamit ci la bokk yow lu lay metti man kay instant bi maa ngi sant yàlla gaañu ma dara wallaahi ngi sant yàlla kay parce que yéen bu nekkee même sant ngeen yàlla mais non même pas explication mais tey boo jógee ci accident da soxla mesure d'accompagnement parce que psychologiquement doo nekk ne serait-ce que ça ñu wax ko pour ñu xam voilà c'est ça sa état sa état man sama état santé wallaahi baax na état mental ah, sama état mental mu ngi ci en instant maa ngi ci en l'aise wallaahi accident bi kat nag dafa bëri woon lii quoi mhm. ñu gaañu en plus ñu feebar ñu dee mhm. man maa ngi sant yàlla ñu ma àndoon kii la andoon ak keneen ki mhm. ñun ñëpp génn nañ ci jàmm alhamdulilah yaa ngi sant yàlla boo amee message booy wax ndaxte Sénégal accident bu amee nit ñi lu ñuy njëkk a ñëw mooy ñëw taxawu ak filmer en plus tey accident bi bu amee ñu ci sauvé ñoo xam ne sant yàlla ñu nekk ay rescapé yan mesure la ñuy gën a soxla pour nga wax ko pour ñeneen ñi nga xam ne bu ñu fekkee kaaw accident xam ne lii lañ war a def. man li ma mën a wax rek ci ay sapeur dañoo gaaw ñëw sauvé ñu ko sapeur pompier mention am na ay nit ñu ñëw dimbali ñu bëri. wallaahi mais ñu ñëwul kam man mënuma ci dara wax mais ñu ñëw nag maa ngi leen delloo njukkal lépp waaw maa ngi sant yàlla nag sant yàlla rek loolu rek laa mën a. waaw. yi ak comp kii accueillir nañ ñu baax waaw daa bëri woon ay médecin nag su doon ay médecin yi kay instant bi daal dee bi dina bari quoi. mais bëri na ay médecin waaw loolu la accéléré nañu bu bari ñu accéléré affaire bi lépp waaw mais sant yàlla rek la mën a wax wallaahi Fuuta lañ dëkk Fuuta lañ jógee waaw waaw waaw merci beaucoup mu ngi noonu nag accident bi fii nga xam ne euh, mooy Louga bi mu amee nag lu ci ay vingtaine de morts euh, daal dina am ci boobule accident accident bi nag bus la bu jógee woon Fuuta di dem ndakaar ci noonu la daal mbëkk garab bi ngeen xam ne mu ngeen ni gis jamono ji ba mu mbëkkee nag Euh, garab situation bi fi mu toll nii mun leen leen xamal ne lu toll ci victim yi tollu na ci 76 victim ci 76 victimes yooyu nag am na ay vingtaine de morts yoo xam ne sur place la yoo xam yeneen moor yi nag ci évacuation bi la wala it ca hôpital ba ñi nga xam ne nag euh, dañ leen euh, yóbbu ci fi nga xam ne mooy service accueil ba tollu na ci 54 euh, personnes décès ya nag toll na ci 24 donc vingt deux ci site bi fii nii nii lañ daal di de benn koo xam ne bañ ko yóbboo ca hôpital euh, service d'accueil bu hôpital bu Saint-Louis blessé nag dañ leen a départagé ndaxte ñii dañ leen yóbbu Saint-Louis ñii ñu yóbbu leen Louga ya nekk nag ca Saint-Louis am na treize cas grave yoo xam ne évacué nañ leen ca service d'accueil bu nekk ca hôpital bu Saint-Louis am na it yoo xam ne euh, yóbbu nañ leen tamit ca Saint-Louis ñoom dañu soxla li nga xam ne mooy body ndax ndaxte blessé ba dafa euh, métti euh, trente blessés aussi yóbbu nañ leen ci hôpital bu régional bu Louga ci trente yooyu nag am na quatre graves fii ci hôpital régional bu Louga am na it quinze blessés yoo xam ne daal dinañ leen admis au niveau du centre de euh, santé li nga xam ne nag mooy gestion des corps yi lu toll euh, ñu toll ci 24 ci 24 corps yooyu nag 13 lañ ci daal di identifier identification yi nag mu ngi continuer di nekk en cours durant ci évaluation bi nga xam ne moom moom la ñuy def ci noonu nag la lancer li nga xam ne mooy collecte don de sang Euh, ca hôpital régional euh, bu Louga ak euh, environnement ngir ñu mën a maye deret ndaxte niñ ko xamee rek accident su amee hémorragie bi dafay bëri tey it li ñuy ñàkk ci deret ñi nga xam ne ñooy victime yi dafay daal di bëri ba tey ci victime yooyu ñi nga xam ne ay rescapé lañ sànq rek maa ngi koy wax soxla nañ li nga xam ne mooy suivi psychologique boo xam ne war nañ leen koo topp ndaxte nga nekk xale ndaxte buñ gisee bus bi ak xale yi ci nekkoon ci rescapé yi ñu gis ndaxte ñoom dañu jógewoon fi nga xam ne mooy Fuuta pour dem Dakar ay xale lañ seen dàll lañ ñëwoon di récupérer ak seen quelques bagage ñu ngi noonu euh, sama caméraman bi di leen ko won kon fi mu toll nii ñi soxla nañ assistance psychologique ndaxte it yombul ci xale nga daal di euh, dund euh, bi bile euh, mbir ñuy fàttali nag gouvernement du Sénégal daal dina xamle ne képp ku ci soxla rek information yu ñeengal ci accident bi mun ngaa dugg ci santé point gouv point sn dinañ def ay mise à jour saa su ne rek ngir joxe plus d'information ci boobule accident mu ngi noonu nag accident bi nag méttiwaay bi fu ko natt rekk euh, weesu na bu ñu xoolee nag accident bi fii Louga dafa xaw a similaire ak bu six kilo bu ñu xoolee li nga xam ne mooy tali bi xat na yaatuwul te it oto yi fii jàll muy ay bus ak camion ay bus ak camion yooyu yëpp euh, day daal di day daal xat daal pour ñu mën a euh, jàll ci boobule tali de même que it buñ jàppee

kon na ngi wàccee rek mbaxtal la euh, du coup bu nekkee benn genre vitesse bi danga ci ñëwee wala it tali bi daal di ratax rek day yomb ki nga xam ne mooy oto bi mu daal di mbëkk dara wala it mu sànneeku ba gis nga rekk mu ngi noonu tey tali bi dafa xat dafa xat loolu tamit état Sénégal war nañ cee bàyyi xel ci région yi parce que bi ñu demee six kilos c'était pareil euh, tali bi xat na xat boo xam ne ñaari bus wala ñaari euh, camion bu ñu naree jàll dina am koo xam ne di nga may sa morom tellement que euh, tali bi dafa dafa xat mu ngi noonu daal métti na accident bi métti na. metti na torop ñuy ñaanal ñi nga xam ne victime yi lañ euh, rescapé yi famille victime yi tamit ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ndaxte it yombul yombul accident moo demee noonu ñu ànd ak yéen rek xoolaat quelque réactions ci ci accident bi. waaw euh, soxna si fii moom doy na waar lool lool lool lool lool parce que fii li fi li fi li fi am ci accident bari na trop trop trop ba jaaxal ñu di commencé di commencé Ngën Saar. jàpp Louga jàpp Kéel ba Nguma ngeewul man damaa jàpp ni quoi tali tali bi moo xat ba pare tamit tali bi quoi juubul dafa dafa nekk ay virage mais moom da jàpp ni semaine bu nekk moom moom moom moom boo fi jaaree danga fekk accident. waaw fii nii diggante diggante bi xaw ma tali bi xat xaw ma nag euh, ni nga ko liggéey moo moo moo moo day waar mais moom accident i moom moom moom état bi kii quoi war nañ cee jóg xool ba xam euh, naka lay naka lay kii naka la koy lijjantee. mais moom na trop trop moom certe bi tamit bari na trop trop trop moom macha allah li fi accident moom moom war na war na koo bu baax mas naa ci fekk ba xam ne ni man màkk bara gi gii laa jóge yor yor yor sama moto bii doon yóbbu client boo ñeew ko ab daanu fii ba mbëkk garab cet kenn da laalu ko kenn laalu ko mbëkkul mbëkkul euh, mbëkkul xar mbëkkul bëy mbëkkul nit mbëkkul morom oto daa daa xuma daa gilisa xuma doon nelaw mais fekk naa ko mbëkk ba jaaxaan justement sax pour bu Louga bi ba ñëw ñëw ñëw euh, dimbali leen fi yàlla moom moom moom moom jàpp naa ne tali bi xat parce que tali. parce que Sénégal euh, daal mooy li ma gis mooy tali bi moom tali bi moom ku xool tali moom moom motu tali moom ñaari oto yi ma xëj daal moom bàyyi bu ñu sàkk pexe parce que fii moom moom moom moom lii moom euh, njëkku fi moom xëy bi daa gën a metti mais moom njëkku fi tey moom yaa beaucoup d'accident am na fii moom waaw ok eh, mu ngi noonu ki ngeen gis euh, muy dem nag ku jigéen ki ay doomam moo ci moo ci bokk. salaamaaleykum noo leen def eh, massa

massa soxna si massa massa soxna si massa massa massa tuddal yàlla soxna si massa massa massa soxna si tuddal yàlla soxna si tuddal yàlla tuddal yàlla dégg nga tuddal yàlla tuddal yàlla dégg nga. ça doomam dafa mu ngi mu ngi à l'hôpital fii fa xaw a sonn rek. doom ji waaw. Mhm. sunu sunu rakk la ak sunu jarbaat ñoo newoon ci bus bi waaw. am na ci kus yu xaw a sonn mais keneen ki ça va yaramam mu ngi xaw a tane. kenn ku jigéen ak kenn ku góor keneen ki bon ay jeunes la ñu ah, parce que ku jigéen ki BFEM la doon def ku góor ki tamit bak la doon def waaw ñoom ñaar ñëpp at mi waaw mm, waaye mm, effectivement mm, waaw waaw très difficile très difficile on interpelle l'État pour euh, parce que ñun lii dañ koy vivre chaque jour xam nañ ni que y a la sécurité du tout y a pas le contrôle qui s'y est très sincèrement il faut vraiment des efforts de la part de l'État de la part de ceux qui contrôlent parce que xam nañ li ñuy wax on sait bien ce qui se passe ci la merci yàlla baax na